naan. ah la. yow dama lay teral parce que dañ ñoo lu mu sell nii. waaw dafa a. dañu lay ko am. bàcc nañu ko waaw soo ko rek. ba def si xolu nit yi. foog ñu nangu lool. dëgg la. donc du di ñuy jox xaalis. yow ñun ñoo lay teral ñun ñoo ñu ko di jox xaalis xel ko ji. ay parrainage. ah léegi ñu ngi sama waaj dama koy teral. Ah, waaw dina ma nii waaw dama la. yow dama lay teral parce que dañ ñoo xëyee lu neex mu sell nii. dañu lay teral et dama bëri ji. non. jàllalee ci parrainage. non foog ñu jàllale benn candidat mënu ko am. bàcc sëriñ Touba foog ko rek ko def si nangu lool. dëgg la du du du du bu rafet du tur bu rafet yàlla rek la. ñun dañuy ñëw di ñu jox xaalis yow ñun ñoo lay teral ñun ñoo ñu di jox xaalis xel ko ji.